alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu sunu waa commune yëpp xam naa feebar bee tax mu demee nii te nii la war a demee ndax nit day topp ndigal gis nga feebar bi ku am xel dëng ci tiit ndax lu ñëw xamoo fu mu jógee xamoon nu muy wàllee ñi nga xam ni ñoom la ñu yaakaar ci wér gu yaram di fajoo seeni garab topp seen médecine ñu nga ca jaaxle xamuñu luñ ciy lef boo nekkee ci réew mu mel ni sunu mos mi dangay ngay natt ñamu ca dal ba ñu àgg ci phase finale nga xam ni loolu bu ñu dalee fii sunu hôpitaux yi attanuñu ko nga ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla musal te tollootuñu fu nit di di di sikk sàkke ndax feebar bi réalité la wala déet ñëpp addina bi xam nañ ni feebar bi léegi réalité la li ñu ci mën a musal mooy topp ci ndigalu ñi ñu dénk sunu wérgu yaram yàlla dénk leen ko yàlla moo bind médecin yi denk leen wérgu yaramu nit ñi Nous sommes d'accord en république le ministère de la santé Nous ko sunu wérgu yaram kon ni mu wax ni barrage bi ba bi nous ñuy ko koy not recommandation ne Nous, mmh. en tant que religieux bi ñu yéegee ni ndax daara ja mag na komil di ay imam yu fa jóge ñoo ma ni ma dañu gàgg man leen lan moo leen gàgg loo ñu ni dafa am dañu wax ni dañu tere ñu julli juma alarba lañ ma ko wax man leen seet leen bu fekkente ni c'est étatique ordre bi ci état bi la jóge tëj leen seeni juma ndax charia bi muy jàngale juma wutal ko bunt daf ca am paragraphe bu mu tudde ngant yi tax ñu bàyyi ko wa uzru tarkiha wal jamaatu la wax ngant yi tax kenn dootu julli juma kenn dootu dajale ci muy ay espoir ak i crainte yoo xam ne bu ci nekk espoir ba espoir wu mucc ci corona kum ëpp junni yoon crainte ba crainte mu dal la moo ko ëpp junni yoon te yooyu islam ni la bu loolu amee bul julli ci juma kon bu wérgu arab yaram amee bu ñu xalaat bu kenn indi opinion nañu seeti li texte yi wax ñu wax ko nit ñi ñu appliqué heureusement kilifa yi def nañ ko ci senegal alhamdulillah léegi li ci des mooy l'autorité na ci na ko imposer les récalcitrants ñi bañ du duñu leen bàyyi ci seen bañ googu ba ñu répandre fi feebar bi nañ leen imposer ndax l'autorité loolu lay jari commencé nañ ko na gën a tar te ñu ñaan yàlla jàpp leen te it nii war a jàpp gi ci lii nag ñun bi bi sa bi ñoom idi jëkkee ñëw ma ñëw Pape Moussa ni ma ah maire yi yónnee woon na fi nee na xale yi nañu fexe wàññi yelwaan gi ma ni ko loo ko wax mu ni moo waxante na ak moom la ñu jóg ñu nit di def suñuy démarche di xaar yàlla xam na ni lii ak ñoo bett booba ñu ngi xaar situation buy ñëw ñu war ko waajal gis ay mécène yoo xam ni dañ leen a wax affaire bi comme ni mu koy waxee ni leen mais daara ji la confinement ngi ñëw te xale yi dundal leen saaku par par bis jafe na kon boo ñëwee lii fekk ñu ci alhamdulillahi rabbil alamin li ñu gëm mooy ni téye xale yi ca daara ja buñ ko defee yàlla dinañu jox duñ leen fa téye te ñu xiif duñu mar incha allah ni nga ci jàppalee daara yi nag yal na ni yal na la ko yàlla fay ni nga wax aha kañ ñu ngi ñaan dañuy ñaan tadarruan wa xufiyatan ñun ñaanalu ñu jullit yi kese ñaanaluñu africain yi kese ñaanaluñu sénégalais yi kese ndax dañoo gëm ni tànk benn nit di ame virus bi addina bi nit ñu ci des yëpp kenn du ci nekk ci jàmm lii maye ci nit ñi ñu dellu ci jàmm ku nekk delluwaat ca yiw wa nga doon dox nga mën ko am muy virus bi jóge fi te gëm nañ ni yàllaa ko fi indi nag moom la ñuy ñaan di taraxlu yëgal ko ne ko yëg nañ ni moo ko fi indi sonn nañu moom dong ci man dara yàlla nañ ko fi jëleel ci barke man yi waaw ñoo ngi wax salaamaaleykum di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Malicounda di xamal tey ne ni ko président ñaane te mu jiitu ci ñëpp nag ndax def na ko te taxaw na ci tamit pour dimbale askan wi pour que lii nga xam ne mooy feebaru corona dugg ci sunu biir ñun ñëpp ñu mën a jàkkaarloog moom te am ci moom ndam ci logique boobu rek la ñu nekk tey ñëw Malicounda war a poser deuxième ginnaaw bi nga xamee ne joxe nañ ay produits yu jëm ci saabu ak eau de javel ak ay masque ak lépp loo xam ne lii personnel de santé bi da koo soxla woon daara yi soxla ko garage yi soxla ko mairie bi ak bépp barab boo xam ne bi day am mbooloo ginnaaw bi ñu leen joxee matériel yooyu ba pare tey dañoo ñëwoon nag pour door def deuxième acte ci xeex contre le coronavirus muy jël ay dund yu toll ci fukki tonnes ak juróom ak genn wàll ci ceeb muy 15 tonnes 500 ci ceeb téeméeri saaku soble téeméeri saaki pomme de euh, téeméeri gorosu suukar ak diwlin bu ñu toll ak mbiskit loolu yëpp di ay dund yoo xam ne dañ ko dajale tey conseil municipal bi dajale ko ñun ñëpp ñu ànd ci pour teg ko ci loxo yi sëriñu daara yi parce que Malicounda tey mi ngi toll ci téeméeri daara ak daanaka ñeent fukk euh, juróom-ñeent fukki daara yi dañoo am ay ndongo yoo xam ne yi dañ dañ leen a yore ci seen biir kër di leen dundal ñooñu ñëw jiitu ci ndimbal li pour que ndongo yooyu bañ a tee génn ci mbedd mi di yelwaani ba leneen di leen ca fekk ku nekk xam ne ne boo fekkee ne ndongo dafa nar a génn dem ci kër gi ñu jox ko mu lekk mu dem ci kër gi la mu jox ko mu lekk loolu lu mën a yaatal feebar bi la kon boo président ni mu ko ñaanee ne ne maire yi jàppale ndongo yi ak ndong ak sëriñu daara yi loolu moo tax ñu jël dund boobu ma lim léegi teg nar koo teg ci loxo yi sëriñu daara yi pour que ndonga daara yi bañ a tee génn kër yi di dem di yalwaani donc je crois que loolu benn solo la waaye tamit fàttewuñu yeneen sëriñu daara yi nga xam ne amuñu ndongo ci seen biir kër ñooñu tamit am na ci ndimbal loo xam ne ñoom lañ ko jagleel waaye nag ndimbal li dëgg dëgg dëgg nag mooy ndonga daara yi nga xam ne dañoo nekk ci ay biir kër te balaa ñuy lekk dañuy dem yalwaani ñooñu daal la ñu dajale woon tey dund bii indil leen ko. ci turu conseil municipal bi pour teg ko ci seen loxo jàppale ko président waaye jàppale ko waa réew mi yëpp pour que feebar bi nga xam ne mooy corona dañ koy xeex ñun ñëpp ñu ànd ci am ndam yàlla nañ ko yàlla defal. dund bii ñuy joxe tey pour que xale yi ba a tee génn yalwaani la waaye nag buñ ko joxee ba pare nag xale yi continuer di yalwaani dina doon lu xaw a doy waar moo tax ma lancé appel sëriñ daara yi nga xam ne dañoo am ay ndongo te tey jii wax dëgg yàlla ñu jox leen lu xaw a takku ndax fukki tonne ak juróom toll ci ñetti téeméeri saaku ak juróom fukk bu fekkee ne dañ koo jël teg ko ci loxo yi sëriñ daara yi yaakaar naa ne bu ñu góorgóorloo tuuti rek war nañ cee mën a téye xale yi ab diir lu tolloog weer wala lu teg tuuti ba nga xam ne xale yi war ñoo mën a toog ci kër yi nag te jàng te moytu mbedd mi ndax mbedd mi feebar baa ngi fi te mën na leen a wàll donc ñu ñuy lancé waat appel rek sëriñ daara yi pour que véritablement tund bi daal nañ ko utiliser jox ko xale yi pour que ñu bañ tee génn ci mbedd mi di yalwaan lii ko defee dañoo def lu ñu war waaye comme tamit ci réewum ñu gëm yàlla la ñu nekk muy catholique di julit di benen diiné ñoo ngi am yaakar ne tamit daara barabu kay la kon buñ fa yóbboo ndimbal lii ñoo ngi tàllal suñuy loxo wax sëriñ daara yi ak ndongo yi nañu wàcc ay kamil ñaanal réew ndax bi nga da gëm nañ ne yalla rek moko fi mëna jëlé ginnaw nak bañu jëlé suñu jëlee suñuy comme niko docteur yi demandé waye nak comme ay ñu gëm yalla lañ gëm nañ ne yalla moko fi indi te moko fi mëna jëlé am yaakar nak ci talu ndongo daara yooyu buñ fa ñaanee yàlla mën naa def feebar bi jóge fii kon ñoo ngi tàllal suñuy loxo yàlla di ko ñaan waaye di wax sëriñ daara ak ndongo yi tamit ñu ñaan ngir feebar bi jóge fii. ay ndaw yu nekk fii lañ yoo xam ne dañoo joxe exemple bi ñu tudd ñu nekk benn groupe whatsapp boo xam ne bii sopp monsieur le maire mag euh, may sa Faye ngir jàppale monsieur le maire Maguette Sène la ñu tudd waaye ñoo ñu wane nañ ne groupe whatsapp ndekete yoo ay wax rek sosu ko waaye nit mën na faa jokkalante ba tabaxam réew. ndax ñaar fukki junni yi lu am solo la bu ko groupe whatsapp yi nekk ci Sénégal yëpp defan dimbalee ko ministère la santé yaakaar naa ne feebar bi mën na fee jóg kon ñoo ngi leen di félicité bu baax a baax a baax a baax di waxaat di ci teg rek ne ñoo ngi ñaan borom dëkk yi ak conseil municipaux yi ak képp ki kilifa ku nekk ci commune Malicounda 22 villages yi nañu taxawal ay comité ndax xeex bi nekkul xeexu nguur gi nekkul xeexu commune bi xeexu askan wi yëpp la lu ci waay mën a jàppe rek jàpp ci